jërë ngeen jëf mbokk internetu seen kàddu ginnaaw bi ñu leen nuyoo tey nag dañuy ñëwaat ak yéen ci kaawu Mbayang Diop di benn jeune sénégalaise boo xamante ni nii moom tëjoon nañ ko fële ci Arabie Saoudite depuis 2016 euh, li waraloon lu ni mel nag mooy ni dafa amoon benn intercation ak euh, son sa patronne ci noonu tamit ci la daal di rayee ndaw soosu bi mu ko reyee nag daal di nañ koy euh, yóbbu daal di koy tëj biñ ko tëjee itam ñaari condition yi rek la am comme Arabie Saoudite foofu ku fa rey nit dañ koy rey mais moom li ko dimbali woon jamono jooju mooy ni dafa yóbbaale woon ëmb ba muy dem prison eh, ci noonu itam eh, maanaam ki nga xamante ni mooy doomu xale bu jigéen boobu mu rey te ay atam néew lool fi mu toll nii moom xaar mu màgg pour mu daal di wax ne ndax dafay baal mbayang job, wala mbayang daf koy fay benn sombu bu takkoo takku ki nga xamante ni tamit mooy eh, abu yankoba ñu gën koo xam ci pap Sagna nekk président de la communauté sénégalaise foofu ci Arabie Saoudite doon na ci def ay jaago sago ay ay jéego plutôt ngir ñu daal di jéggal ndaw soosu waaye mu mel ni dara antu si woon ki nga xamante ni nag mooy président de république jamono yi ñuy waxee génn amal na ab visite foofu ci Arabie Saoudite ñoom waa kuréel boobu daal di euh, jàpp ne euh, euh, visitu président boobu mooy seen dernier espoir ngir ndaw soosu nga xamante ni nii mooy Mbayang Thiam ci ànd tey ak Demba Thioune ngir mu daal di indi ay leeral ci mbir mi. effectivement en 2016 précisément soxna soosu di Mbayang Diop dafa nekkoon di liggéey ak benn yàlla def euh, ñu jote bu ñu jotee euh, di fi donc ñu toppee ko mbirum ku nit bu ñu fàttee Saoudite dafa nekk euh, dëkk bi nga appliquer li charia nit dañ la loi donc soxna soosu nekk sunu concitoyenne amoon à l'époque 22 ans donc demoon fa pour daani dooleem jàpp ñu war ko euh, exécuter maanaam ñu daal ko faat del dil euh, dagate ko décapité ko plutôt wala daal di ko jéggal donc loolu mu ngi dépendre également ci ki nga xamante ni tey moom mooy euh, famille bu qui victime ki c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour ñu jéggal ko dafay fekk ki nga xamante ni tey mooy jëkkër ji wala xale bi nga xamante ni tey mooy xale bu jigéen bu mu bàyyoon bu muy faatu donc il faut mu am lu ñu onze ans pour mu mën a baale wala mu mën a bañ donc baale boobu mu ngi dépendre ci ci famille bi benn ci

alors euh, Thioune euh, yan risque la soxna soosu nonu amé ak euh, ki nga xamante moy président Macky Sall ndax intervention bobu nonu dina dina jur ben affaire bo xamante ça sera positif. vous savez espoir bi ñu am légui moi, le dernier espoir Moi, intervention président Macky Sall donc mhm. bu également depuis 2016 euh, le consul et l'ambassadeur du Sénégal euh, en Arabie Saoudite nous avons def ay rapprocher la famille plutôt de la victime pour que nous mën a mais malheureusement depuis 2016 euh, ay démarches ñoo am mais amagul solution mhm. alors comme Dembo, comme ni le président Macky Sall mu ngi woon ci d'ailleurs démb la ici, donc lui intervenir mu demander mu intervenir plutôt auprès du roi et du prince euh, Mohammed Ben Salman pour que euh, famille boobu jégale mun na solution mun na nekk début de solution mun na espoir mm. mais bu weesoo léegi président Macky Sall mën nañ jàpp ne euh, seule solution fu muy génne rek ici, si qui ki nga xamante ne moi mooy soxna soo ñu faatan ko comme nous ma waxé tout ça la ci mbir mi ñaari mbir rek moo mun am mooy que ne soit y aura exécution soit y aura caution financière c'est-à-dire caution financière moi, le prix du sang Moi, que ne si aujourd'hui la famille de la victime de la saoudienne euh, nanguñu ñoo jéggale balé ñoo baale su boba soxna soosu di Mbayang job tay mu wara am 29 ans dinañ ko faat dañ koy exécuter mais bu fekkente ni également famille bi nénañu ñun jéggal lañ leen malgré ño ray sama sama suñu yaay wala suñu suñu suñu jëkk suñu jabal plutôt ñun bal lañ ko mais buñ ko balé su da fay am lu mu wara fay lu muy fay mu ngi tudd caution financière ñukoy tuddé également le prix également du sang mais boudé lolu amul nañ japp né euh, soxna soosu di Mbayang ñu c'est c'est regrettable mais dañu koy fàtt alors Thioune ci benn constat personnel nan nga gisee réalité bi nga xamante ni mu ngi am fële ci Arabie Saoudite ak yenn euh, ci dëkk naar yi muy euh, jeunes africains yi euh, yu ñuul yi buñ demee ci dëkk yooyu di fa liggéey ngir doon ay mindaan ñu jéggal ma ci kàddu gi dañ leen di jàppee ay jaam alors que ñu ngi ci vingt et unième siècle comme niñ ko mën a waxee et que ndaw soosu sax bu ñu dellusee ci fee yi yi nga xamante ni moom la rayee ndaw soosu mën nañ koo tuddee légitime défense parce que anam yi nga xamante ni ak conditions yi nga xamanteni ni ñoom euh, noonu lañ leen di euh, jàppee foofu ñu góor ñi euh, dañuy jàpp jigéen ñi di leen violer et tout ça entre autres mënuñu lim lépp ban constat rek ngay def ci loolu ak ñi nga xamante ni mooy état bi est-ce que protéger na doomam yi nga xamante ni ñoo ngi génn di dem ci dëkku naar yi. comme niñ koy waxee la la migration dafa dafa surtout très trafic des migrants déjà tey pas plus tard que tey am na benn waaye buñ ci jàpp mooy Gonzalo Nuno Pitera Terenza c'est le président de la commission de, du chambre, de la Chambre de commerce euh, bi nga xamante et de l'industrie de la promotion culturelle du Portugal mm-hmm. dañ ko jàpp heure wax ak ngi ci loxo parce que tout simplement dañ koy topé euh, trafic de migrants japp ay nit ñoo xamante ni da nga leen jëlee dëkk yi yobul leen euh, di leen liggéeyloo wala di leen defal lu ñuy wooyee travaux forcés wala di leen def lo xamante ni dañ ko abolir bannir plutôt depuis 1848 moy esclavage mm-hmm. donc loolu moy l'exploitation de l'homme par l'homme donc comme noko waxé c'est un phénomène donc bari na ay Sénégalais sénégalais ay sénégalaises euh, dañ leen di dugal ci ay manœuvres yóbbu ci ay réew ñu leen di liggéeyloo mm-hmm. liggéey bi nga xamante ni tey lu ci ëpp des fois ñoom dañ koy regretter parce que am nañu ay témoignages yu ñu ci jot a am mm-hmm. ki nga xamante ni tey mooy soxna soosu di Mbayang mais fait boobu dañ koy euh, dénoncer dañ koy également déplorer mm-hmm. parce que trafic moom ëpp naa def et surtout état def ci war a jël ay ay ay matukaay euh, sanctions yi sévères pour quand même protéger ces sénégalais et ces sénégalaises yoo xamante ni tey ñu ngi dem seen réew te xamuñu yan conditions lañ fay fekk nekk parce que bëri na ñu nekk victime bëri na tey ñi ci jàpp te kenn xamul tey fu ñu toll wala lan moo leen di dal foofu noonu mm-hmm. alors soxna si nga xamante ni tey moom mooy soxna Mbayang Diop euh, ñu ci mënti wax mooy aujourd'hui euh, yàlla def na jote na ak euh, ki nga xamante ni tey moo nekkoon ex patronam alors mu daal di ci ñàkk bakkanam c'est regrettable d'accord parce que am na ku ci ñàkk bakkanam mm-hmm. mais malgré tout ça comme niñ koy euh, crime un crime n'est jamais parfait il n'est pas elle n'est pas plutôt la seule à commettre ce crime là mais nous avons, faut foofu en Arabie Saoudite ba dugal ko ci mais également parce que bu Faté, fait, c'est altercation c'est parce qu'elle était dans des conditions très difficiles de travail des fois même des conditions est-ce que nous nga xalaat sa nit war na ces conditions donc nous avons un genre surexploitation exactement exploitation, exactement, ni tey ko supporter à la limite limite am na ñoo xamante tey ñu ngi fa woon bu ñu sañoon dañuy ñibbisi mais mënuñoo ñibbisi parce que dañuy récupérer seen i passeport bañ ñu daw donc da ngay gis ne également euh, cette cet esclavage bi nga xamante ne tey moo amoon depuis 1840 et quelques tey moo amaat ci yeneen dëkk et je pense qu'aujourd'hui cet esclavage là il est aboli il faudrait que surtout que ces règles là ces lois euh, supranationales ñu appliquer ko pour quand même protéger tous les citoyens et les citoyennes du monde et surtout le cas de Mbayang Diop c'est un cas très sérieux et je demande à la famille précisément de la victime à ce que ñu jéggal ko comme ça mu mën a si euh, ci këram ak et su boobaa la caution financière d'où le prix du sang ñu mën ko fay comme ça soxna soo ci mën am Jeff jërëjëf euh, Demba Thioune ci leeral yi mbokki internetu seen kàddu yéen tamit ngeen des filles ci site bi ndaxte dinañ leen topal xibaar bi ba xam fan la wane di wujé ak ay bëtam.